dal leen ak jàmm ci li yéen kay xëy gën tey ci réew mi FM réew mi quotidien ne Moustapha Diakhaté wax na ba joggati ilmaanu jëriñ bu Sénégal gannaaw Mohamed Boun Abdallah Dionne mi gënoon di dànkafo ñi nga xam ne dañuy yëkkati ay kàddu ak i jibaani ba noppi ci réew bu Sénégal te amuñu fu ñu ko teg Mohamed Boun Abdallah Dionne ne ku ko defa ti yoon dina wax ci yow Moustapha Diakhaté moom président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom da koo gën a yaatal ne képp ku yëkkateeti kàddu ni mel wala di suli secret ci réew bu yoon ci boppam moo a daan président groupe affaire benn bokk yaakaar le code pénal bi ci boppam soppar ñi yin ci war a indi dañ ci war a boole ñi nga xam ne ñi amuñu jaani biir lépp lu xam rek wax ko ki wax lim xam mi ngi ci yéenekaay bi di la tribune moom maître Ousmane Ngom nekkoon fi ministre l'intérieur ci jamonoy maître Abdoulaye Wade yéenekaay bi ne fàtte na fu kër yi a ndax gannaaw jibale yi mu yëkkati jëmale ko ci maître Abdoulaye Wade oui di gën a jege ak président Macky Sall yéenekaay bi ne yooyu le jibooleyti ka président national pour le dialogue des territoires ci ni cabinet xaw ma ndax maître Ousmane Ngom li wax dëgg la wala du dëgg man secrétaire général bu RD am na ci mbetteel ndax état ni muy doxee ci boppam kenn waru koo fooye état dafa sacré ñi xel xalaat ñu topp leen dootu yàggatee ñi ngi ci ni cabinet observateur yi ni lu jëm ci mbirum Petrotim maître Abdoulaye Wade Karim Wade ak Samuel Sarr bu ñu nelawee jërëtul ñu yandoor ndax ñi ngi leen di teg ay gët ngir gi ñu joo seen loxo ci lu jëm ci wàllu contrat ci wàllu pétrole yi ñu xaatim ci diggante Alioune Sall ak Frank Timis jamono ji nga xam ne ji ñoo ŋànkoon réew bu Sénégal leneen ci wàllu yoon Walf Quotidien gannaaw yëngu-yëngu yi amoon ci kaso bu Rebeuss ñaar fukki fan ci weeru septembre bi ñu génn ba wubbi woon ab l'enquête ngir xam dëgg-dëgg loolu li lan moo ko waraloon yi ni cabinet l'enquête bi jurugul dara waaye am na ay registres yoo xam ni moom tekki nañ seen dombal tànk bu yàgg-yàgg yi ni cabinet Fatou Ibrahima Mbow enquête bi ma ngay wéy waaye fan la nar mujj ci réew bu Sénégal Modou Diagne Fada am Modou Diagne Fada indil Modou Diagne Fada ci lu jëm ci président groupe parlementaire des libéraux léegi mu jeex yéen kat bi di Rewmi Quotidien ne mu tekki ndombal tànkam ni président groupe parlementaire des libéraux et démocratiques yéen kat bi ne ndaamal Daaru Musti kay ne xeex bi mu doon xeex jeex na ndax ni ñu ko bëggoon a néewal doole rek la bëggoon a xeex wal na leen yoon am na ci réew mi gannaaw xeex bi jeex na moom Modou Diagne Fada ne am na yeneen yitte yu gën a ëpp jiite tax sama parti ci boppam di LDR yeesal day bokk ci élection législative 2017 2016 2017 l'école bi ubbi na ci réewu Sénégal yi ni bi di populaire ne juróomi fan ni ki ci weer octobre la élèves yi dem fekk jàngale kii ci classe ya ngir ñu door wàllu njàngale mi yi ni cabinet ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mu digg doom mi Serigne Mbaye Thiam ne dinañu def seen kem kattan ngir ubbi tey jàng tey mu mën a nekk ba benn jafe ak benn gàllankoor am ci njàng mi ci atum ren mi mu tax état bu seeni cabinet génne ne lu toll ci ñetti milliards yu toftal tuuti def ko ci ay matériel ngir ubbi tey jàng tey mu mën a am ci jamono jooju la yéenekaay bi di populaire ne jafe-jafe ñi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram di jànkonteel payoor gi ñu jàpp ne dafa néew ba noppi mu am gënale ñii di fayeku lu bëri lool ñii di fayeku lu tuuti lool ñi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram sàkku ci président Macky mu xoolaatal li ni mel réew mi quotidien ne mbirum Barthélémy Diaz jeexgul gannaaw faatu gi amoon yéenekaay bi ne nguur gi ci boppam ñu mën a def ba Barthélémy Dias tëj jëminam mu taxit yéen cabinet gouvernement bu Sénégal ci boppam kay ña ngay bëgg a suliwaat lu jëm ci faatu googu lay amoon tañ ko ci joxoñ baramu tuma te sax di sàkku ci député yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci nguur gi ñu daal di ba lever immunité parlementaire bu honorable député Barthélémy Dias ba yoon mën ko topp ñu topp li tukkee ci coup bu lajj bu ñu bëgg amal ci réew bu Turquie ma ngay wéel l'enquête boobule daaneel ca réew ma juróomi étudiant yu fekk baax ci réew bu Sénégal ñoom ñëpp dàqee nañ leen ca réew bu Turquie indi leen ci réew bu Sénégal li lépp nag dara waralu ko lu may état bu ci boppam bañ a tëj fukk ak juróomi école yu gëreen yi Recep Tayyip Erdogan doon sàkku ci kilifa yu Sénégal ñu tëj ko moo taxit yi ni cabinet Recep Tayyip Erdogan ma ngay vengé wu dëgg-dëgg dafa mere kilifa yu Sénégal ki mere dëgg-dëgg bàyyam ak jabaram mi ngi ci moo betti wajurumu góor ca yoon bu Bambey mu yegg ci kaw soxnaam su mu takk yi ni kay bi mu taxit moom moom la amul lenn lu mu ko fajee lu may dóor baayam ba mu tëdd ci suuf ba noppi bind ab plainte jébbal ko bàyyam boobu lay doon yegg ci soxnaam ak soxnaam moom lay nangoon li ni